juróon yërëm leen te jeunes yii nga xam ne ñooy dem ci géej gi soxlawuñu ku leen yedd ku leen yërëm lañu soxla jeunes yi dem ci géej gi daanaka jaxal na ma la dund ci dëkk bi ñu nekk des fois nga dégg ñu ne dañuy xaru c'est vrai kenn conseillé wu leen ko waaye situation bi ñuy dund ci réew mi yaakaar bi ñu amoon te yaakaar boobu yàkki ko tax na ba immigration irrégulière boobu tey jii la gën a yokk ci Sénégal ñu ciy jaal ñi nga xam ne it seen bakkan rot na ci gaal bi ñu mujj feeñal ci début de semaine te ay nappkat yu nekk Yoff daw 70 kilomètres ci biir géej ba dajeeg gaal guy yorox gaal guy yorox mooy gaal gu nekk ci géej giy tëmb noonu rek ñu ñëw gis ko jël coordonnées GPS yi ñëw transmettre ko marine nationale ces pêcheurs war nañu leen woo décorer leen ces pêcheurs wane nañu ne Sénégal moo leen ñor gaal googu dama ci am xol bu metti parce que bi ma demee Mbour bërki démb fan yële ci ginnaaw ci naufrage bi fa amoon dañu am benn responsable boo xam ne ci gëm sa bopp la bokk dëkk tefes ñu dem këram doon ko massawu ji biñ koy massawu ji moom fukki nit ak ñaar yu bokk ci seen biir kër yu ñu doon yeewandool ñoo demandoo woon ci gaal googu douze personnes douze personnes yooyu yëpp seen bakkan des na ci géej gi kon nga xam ne njaboot yooyu jaaxle nañu ñu am yaakaar ci ñi jiite Sénégal mais malheureusement yaakaar boobu ku ne ci yéen xam na ne yaakaar bi yàkkeeku na yaakaar boobu ñu amoon ci ñi jiite Sénégal ku ne à partir de journée tey bii ku ne à partir de ndaje mi Ousmane Sonko amal léegi ak ay ministre am képp ku amoon yaakaar ci Sénégal sa yaakaar tas parce que moom Ousmane Sonko boo dégloo discours am bi daf ko trahir parce que ñaari moo yu mu utiliser presque trente fois mooy manipulation. ak mensonge manipulation maquillage mensonge et loolu dafa am lu muy traduire ci subconscient wu kiy wax mooy ne la muy wax la mu ci jublu objectif bi mu am moom lay répété waat noonu ci subconscient wam loolu la bëggoon a wax wax naa ko nee naa leen campagne déguisée la campagne électorale la ñu commencé pour législative yi yàgg naa leen wax ne mbaqat la parce que mbaqat moom mooy jàdd ci koñ bi yor xeer ba noppi di woo ngay ñëw pour mu fëgg la ko jël nañu seeni document conseil constitutionnel jox na leen ko ñu denc ko ba waxtu mu mu leen neexee ñu doog a woo opposition bi def seen discours à la nation ne dañuy organiser ay élections waaye bu na ko tayal parce que les sénégalais sont déterminés jaxal na ma gii Ousmane Sonko di dunduloo askan wi jafe-jafe ak metit yi sénégalais yi di dundu jamono yii ci juróom benn weer yu mujj yi tax na sénégalais yi yeewu nañu moom na ko xam fexe problème mu sénégalais yi mu jublu ci. malheureusement document bi nga xam ne wax na ko ne moom la jàpp ne mooy stratégie nationale de développement bi mu ne dina jëm fii ak deux mille cinquante du ko fi fekk ku takk ci moom sax du ko fi fekk parce que sénégalais yi dinañ leen bale ci élection législative yi ñu jëm sénégalais yi dinañ teg ci réew mi ay nit ñoo xam ne xam nañu nu ñuy dajalee dërëm ak tànk pour defar Sénégal ci document bi nga xam ne jot naa ci parce que man document bi jot naa ci ça presque une semaine mais bi ma ko liiree ànd ak les cadres bi ñu ci waxtaanee on s'est rendu compte véritablement que c'est le PSE du Macky Sall il y a les terminologies et les chiffres qui ont changé maanaam terme yi lañu tu tur yi lañu soppi ak yenn ci ay lim chiffre mais boo xoolee ba ci biir moom li muy wax maquillé ñoom ci seen boppu ñoo maquillé chiffre yii ma gis man ci biir dokument boobu dégg naa ko muy wax ne wuy ñi fi nekkoon dañu sàcc alalu réew mi waay waay waay waay waay Ousmane Sonko dañu la fal ngir ñi sàcc alalu réew mi nga bàyyi leen ak yoon yoon rëq seen ndigg danaa dal ci sa kaw danaa dal ci sa kaw soxluwu la yuuxu dalal ci kaw gaay yi yii ma jàkkaar lool xam nañu amuñu benn yërmande ci ku sàcc alalu réew et j'ai adoré l'attitude du ministre la justice j'ai adoré son attitude kilifa la kilifa mu woo na ko ne ko kaay toog ci ndaje mi mu toog ci ndaje mi ministre de la justice bi Ousmane Sonko joxoñee ay nit ne diw ak diw ak diw ak diw ak diw déglu leen la mu ko wax dafa ne ko dafa am présomption d'innocence loolu muy attitude bu responsable parce que man loolu laa xam ci nit ki ma xamoon démb tey doog dikk ce pays a besoin d'hommes de valeur le Sénégal a besoin de personnes engagées waaye ci dëgg pour ñu mën a changer Sénégal bu ngeen bëggee ñu àndandoo ci lu defar réew mi nañu wéeru ci dëgg document bi ñu présenté sénégalais yi tey gàcce la ci sénégalais yi am chers compatriotes c'est pas un document de 126 pages buñ ñu présenté tey mel ni kuy luxus tanaan danaa def nangam danaa def nangam yow diggee nga diggee diggee diggee diggee ba nit ñi jox la réew mi juróom benn weer nga continuer di diggee ñu jëm ci ay élection ngay waajal sénégal yi pour di leen wax ne am na ay dige yu bees yu ma bëgg a def waaye laata loolu il faut chiffres yi fi nekk les finances publiques ma assainir ko mais oui finances publiques yi dañ ko war a assainir suñu alal la xaalisu réew mi la mais est que suma yaay bi nekk tali maam jaara wala sama maam bi nekk njooñig est-ce que ñooñu ay chiffres ñoo leen di dundal déedéet li ñu bëgg mooy woyafal bii di takk ci biir kër yi te fu waay di toll di gis muy xonq lañu bëgg muy vert li ñu bëgg mooy liñ ñu diggoon ci wàllu njëg yi te boobaak léegi mënuñu ko matale njëg yooyu lañu bëgg mu wàññiku njëg yi dañ diggoon ne day wàññiku njëg yi wàññikuwul yéen a ma ko gën a xam njëg yi tey la gën a yokk ceeb non parfumé tey la gën a yokk diwliñ tey la gën a yokk bërki démb sooda dafa dugg ci sama biro ma dégg ko muy wax ak kenn naan ko nenu baxal cent cinquante la ma ne ko nenu baxal cent cinquante mu ne ma cent cinquante cent vingt cinq lañ koy jaaye xawma ma nangam nangam buñ ko baxalee def ci euh, euh, saf-safal yeeg ñoomin seen bu ñu la ko jaayee cent cinquante la alors ça veut dire tout simplement que les Sénégalais mais sont fatigués parce que bu fekkee ne la nga doon dund démb tey jii nga amoon yaakaar la nga doon dund gën a yokk mais ça veut dire tout simplement que ñi fi nekk ñoo indi situation bi réew mi dund dégg naa moom le premier ministre Ousmane sonk ci ay projection man dama mus bokk ci ñuy wax ne croissance kenn du ko lekk croissance bi wóor mooy croissance bi ngay làmb sa poos faj sa soxla bu la wóoree ne boo dugalee sa loxo sa poos di nga mun a faj sa soxla loolu mooy croissance bi sénégalais yi di xaar malheureusement depuis six mois les sénégalais ñu ngi chercher le diable pour lui tiire la queue tey la sénégalais yi gën a sonn tey jii la sénégalais yi gën a jaaxle ma am njàqare parce que booy wax nit ñi ne leen dinaa soppi seen dund moom moo waxoon ne bu ñu ko joxee réew mi en deux mois dana changer Sénégal tey premier ministre bi dajale ñenn ci gouvernement ma dégg ko muy wax mu ngi teg xel sénégalais xam nga lu mu leen di waajal. pour que ngeen ubbi seen bët te xam ne weer yii ñëw mooy gën a metti man ki ma dégg mu wax mooy sénégalais yi préparé wu leen te ci biir wax bi sax wax na ko nee na danañu wuti solution yi ensemble waxuñu ko ensemble moom la ñu sas moom moo fëgg dënnam ànd ak ñi mu àndal ñu wër Sénégal di fen mu ànd ak ñu koy fenal ñu déggoo seeni fen moom mu dàq leen a fen ba ñu jox ko réew mi c'est ça ba ñu jox ko réew mi kooku ñu jox réew mi tey moo ñëw taxaw di leen wax ne kooku ñu jox réew mi kooku ñu jox réew mi dégg naa la nga ne mu ngi ñaaw na mos kooku ñu jox réew mi kooku ñu jox réew mi moo def projection ci suñu croissance dé dégg ngeen li mu wax dégg ngeen chiffre bi mu wax nee na ñaata la jëmee croissance su Sénégal 6 point